المدر بدا لي صنع القاسم ربي بجاه وسلام خاسر لي جار ربي من اوال القرناف بالمنتقى المختار من عبد المناف دعائي استجاب بالمخفي ربي المختار من حسين أسأله نيل المنى بالأسراء ولا قرار بنبي ابن كلاب لي جد خير وكني مدرّ ربي بجاه المصاب مرة طيب وادي برب سابي لي أبدا بالمن قبل كابي يا الله يا ذا العرش والكرسي سلم برسمي من اللؤي يا رب سل جملة المتالب بلا حساب من أبي الخالد بدي وسخر يا كل ساري وكل يوم من أبي الفعل يا خير الناس وخير مالك والنصر وملك بابن مالك خبيئتي وعزتي وندري كونك لي فليكن بمدري رل الإله وليعب جنانا في منتقى المختار من جنانا بكي now. ne dogon kanak dem gi wolof nasra te kon bi leer bi ñépp dem ñu ren kon Tuuba gon kanak dem gi ma dal la ñaan ci barke diini ne yàlla maay chef yu tudd diini Cheikh Bamba dal di ñaan ci barke diini ne yàlla maay chef yu tudd diini maay xaadim rasuuli fi soodaani maay rambu xam bi maay miireeni maay xaadim rasuuli fi soodaani maay rambu signé waaja dal di jiital Bamba isaam ne ma ni maay amadalu lislaam Ya ko won li li nga ñu defal tay jomb nañu nga xam ko bu baax ndax sa jëm ju tedd ji di sëtub serigne Touba di domi cheikh Sohaybu bayiko Touba ñew fi ak ak ndox mi tay ni mu demee amon nga lay mbake. nga lay waye li limi tegtale moy serigne Touba rek kala ñor serigne Touba rek kala ñor talibé serigne Touba rek kala ñor ndax lii ku la doon jox àddunaak ak li ci biir jaral la kon maa ngi lay seereel ni waa yaraax tey ñëpp bég nañ ñëpp mbàkke bég nañ sa dikk gi nga dikk fii tey wutale wuñ ko dikkuk sëriñ soxoy bu mbàkke fii wutale wuñ ko dikkuk sëriñ saayu mbàkke fii wutale wuñ ko dikkuk si abdul xaadir wala si abdul lahat wala si muhammadul mustafa fii tey sëñ tubaa moo teew suñu biir ne ko ñépp xam sëñ Touba moo daagu ba teew fii suñu biir tey kon nag nañu xam ni nañu xam ni lii ab soññee la tey ci ñun Ya ni pun, mën na am yaakaaruñ ko won li nga ñu defal tay jomb nañu nga xam ko bu baax ndax sa jëm ju tedd ji di sëtub Serigne Touba di domi cheikh Sohaybu bayiko Touba ñew fi ak ak ndox mi tay ni mu deme amon nga wlay amon nga wlay Mbàkke waye li limi tegtale moy serigne Touba rek la ñor Serigne Touba rek la ñor talibé seigne touba yi rek la ñor ndax li ku la doon jox aduna ak li ci bir deral lu kon ma ngi lay seereel ni waa yaraax tay ñëpp bëgg nañ ñëpp mbacké bëgg nañ sa dikk gi nga dikk fi tay wutale wuñ ko dikku sëriñ soxay bu mbacké fi wutale wuñ ko dikku sëriñ sayu mbacké fi wutale wuñ ko dikku Cheikh Abdul khadir wala Cheikh Abdul Lahad wala Cheikh Mouhamadul mustafa fi tey sëñ Touba moo teew suñu biir na ko ñëpp xam sëñ Touba moo daagu ba teew fii suñu biir tey kon nag nañu xam ni nañu xam ni lii ab soññee la tey ci ñun nag soñ bu mii de lenn rek lañ ko mën a fayee muy projet kër sëñ Touba gi sotti lenn dong lañu mën a fayee sëriñ bi tey mooy projet bii sotti mu ñëw fi daal koy ubbi ñu jox caabi yi Serigne Touba loolu rek lañ ko mën a fayee lenn lu ñu def lu dul loolu nañu xam ni dellawuñ ko njukkal ndax projet bi moo ko fi indi kon nañu gore suñu diggante ak tubaa Touba nañu joxaat suñu sëñ Serigne Touba continue da ngay dëgër wax ji solo waaw dëgëral rek continuer continuer waaw ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax a baax xam nañ ni sëñ Tuubaa na nangu na suñu liggéey xam nañ ko kon mbokk yi man samay wax tey mooy ñu soññee ko ci dikkuk sëriñ Abdou Samad mii tey ndax dikk gii de man ba ma ko njëkkee wax wallahi alazim yaakaaruma woon ni lu meuna nek la yaakaaruma woon ni lu meuna nek la kero bam mako waxe ñu togat lu mat 15 jours ñu wat ci mom dal di daal di koy wax mbàkke ni ko ñun ñepp yow lañuy xaar mu ne na ma ko waxe won non la koy defé ta tay de mbàkke nga ngant amon nga ngant pour baña ñew kon mbàkke ñi ngi ñaan ci barke serigne Touba barke xasida serigne Touba yalla na nga sut sa wajur ya aw barkeb Serigne Touba bi nga xam ne da koy séddale lam ko sédd nam ko séddee sa waajur ya yàlla na la séddee nu raw noonu Mbàkke suñu xool sedd na guyu te Serigne Touba de lii rek la doxalee suñu diggante ak yéen waaye ñun de ñu ngi séeral Serigne Touba ne suñu xool sedd na guyu ci yow amuñu dara luñ la fayee nag amuñu dara luñ la fayee waaye li ñu am yéene jàpp ne buñ la ko defee sa xol dina sedd mooy projet Kër Serigne Touba gi ñu teg ci suñu bakkan mu àgg. yeesal suñu njëbbal suñu diggante ak yow waaye rax yépp ñu ngi yeesal seenu njébbal ak seen xol bu sedd suñu diggante yow Mbàkke suñu xol sedd na guyu kon na ñépp taataan ku ci nekk foo mën a nekk na nga taataan sëriñ bi soññee ñun ñépp ñu xam ne liggéey bii tax sëriñ bi ñëw fi ku fi jóge boo ci doon def benn na nga ci def téeméer te xam ne dana sotti lépp luy sotti nag boo bëggee say mbir sotti da nga say dugal say mbir kon ñu ngi sant bu baax Mbàkke sant nañ bu baax a mbaax jëf Mbàkke jërëjëf jërëjëf Cheikh Modou ñoo ngi lay ziyaare bu baax di rafetlu kàddu yi am na solo lool dal na yàlla taxawu la te sàmm la te liggéey bii nga jiite suñu borom def mu àgg ci jàmm te ñëpp ànd ceeg tawféexi sëriñ bi ak ngërëmam ginnaaw loolu nag noo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdou Samad Mbacke ibnu sëriñ Chouaïbou ibnu Cheikhul Xadim ñu ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér naal yi nga xam ni am na ko ci diine ji am ko ci lislaam yi ak yëngutoom akok dalam ak yitteem lépp dara génnu ci sëñ Tuubaa boo ko gisee guddi ak bëccëg suba ngoon moo ci yem léppam sëñ Tuubaa rekk la bari war na ko ñime ci yoon wi mën a toog ci tele bu la neex waxtaani sëñ tubaa te doo ci ragal dara lu bare bari ci nit ñi diko def am ci fit jëmam ji motax ndax kenn ku ci nek boko ko muy waxtani sëñ Touba ak taxaw gi mu taxaw ñi waxtani sëñ Touba tax na mu dolli aw fit kati sëñ Touba yépp li rek firnde la ci ndax kenn ku nek xamna ni waxtu nawet ak responsable wëri bi nga xamni sun borom jox nak ko sëñ Touba jox ko ko ak ci wéru safar wii nga xamni ci lañu nek kenn ku nek xam yittem ak dëkk ba mo lep nyau lepp ñew ci ñun kon war nañoo xam ni seetul ni ñu mel waaye sëñ Tuubaa xeeñtu ci ñun biñ ko ko waxee lam njëkk a wax mooy yitte yooyu mag yéen koy ànd ba mu àgg te li ma ci li ma ci war a def lépp duma leen ko wax dama leen koy junj li ma ci war a def lépp du ma leen ko wax daan ni bis boobu bu demee ba àgg ca mag yéen koy ànd te wax dëgg yàlla kenn ku nekk xam na ni yaram wi neexul waaye teewul dani li ma waxoon faw ma def ko ndax nit amul lu dul kàddu bi mujjee diggante wala dane ma sama yaram neexul waaye nit amul lu dul kàddoom te waxoon naa leen dinaa ñëw ba noppi dinaa ñëw ñun nag Mbàkke noo ngi lay seereel ni sa ñëw gii nga fi ñëw wóotale wuñ ko ak ñëwuk sëñ Muntaxa Basiru fii barke alxuraan wóotale wuñ ko ak ñëwuk sëriñ Muntaxa Basiru fii ci dëkk bi ndax lii yaakaar naa yarax yàgg na waaye mu ngi fi dooga murit yëpp ban ne da ngay ñëw ba léegi fenn fu nekk ci gox yu ko nit wootee na fa dagge na fa ay yitteem ngir jàkkaarloog sa jëmm ji kon nag teral nga ñu sagal nga ñu liñ la war a sagale ñun nimit mooy li sëñ Mudu wax rek ñu xam ni sëñ Tuubaa defal nañu loo xam ne tey jii mënatuñ koo fay képp ku jàppoon sëñ Tuubaa benn baye boo nga jàpp ko fukk ku ko jàppoon fukk baye boo nga jàpp ko téeméer te xam ne sëñ Tuubaa sagal nañu lii Ndakaaru ba mu daj tey jii ñun rek noo ko fi am mu dem mbage mit bisub safar boole ci kon nag ñoo ngi lay ñaanal Mbàkke sa ñëw gii yàlla na lépp ànd ak tawféexi sëñ tubaa ak ngërëmam sag dellu it yàlla na lépp doon ngërëmul sëñ Tuubaa ndax yow looy dund ak di ko wax ak di ca sonn ak di ca yëngutu lenn doo nga cay sàkku xam nañ muy ngërëmul sëñ Tuubaa ngërëmul sëñ Tuubaa loolee nag noo la koy ñaanal tey sàkku nga ñaanal nu ko képp ku fi teew Mbàkke am ngërëmul sëñ Tuubaa te rafet na ci njott ci weer wi kon nañ lay jox rek bu ko defee nga dal di soññ mbooloo mi ndax donga yi fi nekk ay jàmbaar lañ bëgg nañ sëñ Tuubaa namm nañ ay mbiram ñu ngi ciy yëngutu ñu ngi ciy sonn waaye nag waxtu wu nekk ay nit a fi nekk di wax te ñi fi nekkoon di wax di soññee yëpp bu ñu waxee junniy kàddu ba lay sa genn kàddu mooy wecc seenu kàddu kon bëgg nañ Mbàkke nga soññi murid yi bu baax a baax a baax a baax xamal leen liggéey bi Sëñ Tuubaa bi lim leen mën a jariñ ci àdduna ak lim leen mën a jariñ àllaaxira nee na yéen mbokki taalibeem yi moo ngi leen di nuyu bu baax nee na yéen sama mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax sëriñ bi nee na di leen sant bu baax ci seen taxawaay bi sëriñ bi nee na di gën a dalal seen xel bu baax a baaxati ci sëriñ tubaab mi nu amut lu dul moom nee na fi mu leen toll ak li mu leen jaral sëriñ bi nee na dangeen a dox jëm ci moom waaye nangeen rafet njort ni sëriñ bi dana dox gàttandu leen ndax sëriñ bi fa mu ne dafa kawe ku fa àgg moo la dimbali waaye kenn jotewu fa nee na la sunu maam ja daan wax maam Cheikh Ibrahima Fall nee na dadaa wax sëñ Touba Mbàkke ëpp nga sëriñ mu ne ko toddoo boo doonanu sëriñ it ñun matunu la ay taalibe waaye nag pexe amut ñun ñoo fi ne nee na kon nag ndokke ñun nee na dafa mës dégg sëriñ Abdul Ahad mu wax ni Cheikh Mouhamadul faadal daf koo nettali ni ko daa xëy bis ñëw ci sëriñ bi mu ne ko tey de damaa ñëw ngir santal si taalibe yi taalibe yi wëy ak yii fi nekk ak taalibe yi xas a ñëw ëllëg nee na ñuy sant nag ci tase gi ñu tase ak yow bokk ci sa mbooloo te nangul la nee na sëñ ne ko sëñ Fàllu sant ngeen ci lu ko mat ndax ndax bu ngeen ñëwoon jiitu ma wala ma tase yéen gëmu leen ma wala ma dem ba samay mbir jeex ngeen doog a ñëw nee na kon day mel ni gémmiñ da leen a jàpp nee na yéen nag gémmiñ jàpp leen yéesu leen ëpp leen waaye sëñ Fallu li tax ngeen war a sant ànd ak koo xam ni fa mu jëm xam na ko fa mu la jëmee it xam na ko nee na loolu dafa yombut te moom mii Sëñ Tuubaa daal di tàllal baaraamam yu tedd yooyu daal di ni rëdd baaraamam yii ni mu ko leeree nii la ko leeree fa mu jëm ak fa mu nu jëmale nee na loolu sëriñ Abdul Ahad la ko déggee sëñ Fàllu nettali ko ko nee na kon nag yéen itam na ngeen rafet njort te sant yàlla bu baax ci ki ñu àndal mu xam fa mu jëm xamit fa mu nu jëmee sëriñ bi nag dara du ci jariñ kenn lu dul jëf la Cheikh Ibrahima Fall daa wax rek nee na sëñ Touba baskil la tiim ko di wax rek amul njëriñ nee na danga cay teg dara mu doog laa wax nam toll waaye waxi kese rek du la ko wan nee na jëf rek nee na mel na ne am ngeen pas-pasu jëf yàlla na leen sëñ tubaa defal tawféex ba yéene ji ngeen am ngir jëmmal kër sëñ Touba ngir jëmbal kër sëñ Touba fii ci Yarax. ak daaray sëñ Touba fii. ak daaray sëñ Touba fii. yàlla na dëppoo bëggug sëriñ bi. yàlla na dëppoo bëggug sëriñ bi. ba mu dimbali leen ba ngeen defee ko ni mu ko ba mu dimbali leen ba ngeen defee ko ni ko sëriñ bi bëggee. ndax sëñ Touba mooy tànn ay këram. ndax sëñ Touba mooy tànn ay këram. du foo bëgg mu am fa kër rek mu am ko fa. du foo bëgg mu am fa kër rek mu am ko fa. nee na pàkk yi war a doon ay këram. sunu borom tànnal na ko ko ba noppi. nee na duuni duur yi wamaa lixtiira min jiiraani naajiyatun min jaalibil xusraani nee na moo tax du fu la neex rek def ko kër sëñ tubaa nee na sëñ tubaa mooy tànnal boppam këram nee na kon nag moom sëriñ am sëñ sëñ Abdou Samad mi ngi koy dagaan ci weeram wii sëñ tubaa tànnal leen pàkku boppam te yombalal len la ngeen cey def ba nopi it ngeen amé ko nako serigne bi bëggé ak na ngeen ko bëggé néna na su boobaa yàlla na fekk serigne muntaha mbacké man ko yebal mu dik ubil ci len ko néna ngeen am ci ngërëmam am ci ngeureumal serigne serigne touba touba nak mom serigne bi néna na serigne touba nak mom nee na da tàmbali rek nee na Serigne Saliou daana wax ni nee na Serigne Saliou daana wax ni mosumaa gis lu àgg te tàmbaliwuñ ko ab murit moom day bëgg rek tàmbali rek la ca des sëñ bee koy àggali nee na Cheikh Mouhamadoul Moustapha ca mat ga ak jàmbaar ga ak fidwa am na ku ko mos a wax ni ko li nga tambali fi mu yato ni ci all bi ay jumtuwaay amut ci jamono ju naqari ji mu ne ko damaa defe ni da nga xamut tabax neena seigne Modou musa ni ko yow it xamoo seigne touba waaye yeen itam seigne bi neena bëgg rek ta dox wi seigne bi ngeen di dajal mo len defal li ngeen bëgg te nee mi ngi ñaan jisin wat senyabo ubil len ko ci bugon sëñ Tuubaa sëñ Abo sëriñ bi nee yow la bëggon nga waxal ko sax nee mi ngi and ak jili mbacke am di mi nee xamna xataay bi motax waye bu benene rek buñu delse mu gëna yaatu inshallah allah sëñ bi neena waye li tax sëñ Tuubaa yemul ak dara te liggeyel ko yemut ak dara mom liggéeyal ko ci bopam moom sëñ Tuubaa ci boppam dadaa liggéeyal boppam ndax xam njariñul liggéeyal ko ndax ko dadaa wax ne jëmm ji wax ne jëmm ji bu ko mënon def ñaar jenn ji di liggeyel jenn ji dana ko def kon nak kon nak ndokk bi len yalla xire ci ndokk bi leen yàlla xiiree ci liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen di ndaw yi tubaa Tuubaa yàlla na leen sëñ Tuubaa gàttandu ba bu ëllëgee ngeen bokk ci gone ya nga xam ne dañuy doon bëkki néegi sëñ Tuubaa ca àjjana ci dara daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na sant na leen bu baax tey rafet njort ci seen mbir lool nee na li ciy wàllu zahir nag la mu ci war a dox ci ay pexeem nee na mu ci mën lépp dana ko def jàppale leen ci wet yooyu yëpp ku ko déggalit bu ko laabiree nga dégg ko dina ko wax mu jàppale leen ci waaye nee na bu leen kenn jàppale wutoon it Sëñ Tuubaa dina leen jàppale waaw nee na ngeen rafet njort bu baax jërë ngeen jëf kon ñu bokk tàllal rek na ñëpp tàllal amin amin Mbakke آمين مكي رحمن على وانصر بركة جميع وتقبل من المقدر ذاتك يا رب العالمين الرحيم ربي بما يشرب الأذان قد جاء بجاه عقد من لله خد جاه حمدي ذنب كريم لا شريك له والصدر من ساعة الملأ محمد صلوات الله في أبد علي في حسبي كلي بي كلا أتو إلهي لسعم الموت ناجته وجل عواما وكرمني تكريم هاد وكل من العون بر يا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآن وقراءة المصطفى عن كل مفسدة وترحم القلق يا من جد بلاء يا مالك الملك يا من جل عن قولي ارحم جميع الوراء يا هادي الوراء يا مالك الملك يا من جل عن قولي ارحم جميع الوراء يا هادي الوراء يا مالك الملك يا من جل عن قولي ارحم جميع الوراء يا هادي الوراء موت ما قد محاه القلب من طرد بجاه قدر من لله قد رجاه سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nee na yéen mbokki taalibe mi moo ngi leen di nuyu bu baax nee na yéen sama mbokki taalibe yi maa ngi sëriñ bi nee na di leen sant bu baax ci seen taxawaay bi sëriñ bi nee na di gën a dalal seen xel bu baax a baaxati ci sëriñ tubaab mi nu amut lu dul moom nee na fi mu leen toll ak li mu leen jaral sëriñ bi nee na dangeen a dox jëm ci moom waaye na rafet njort ni sëriñ bi dana dox gàttandu leen ndax sëriñ bi fa mu ne dafa kawe ku fa àgg moo la dimbali waaye kenn jotewu fa nee na la sunu maam ja daan wax maam Cheikh Ibrahima Fall nee na danaa wax sëñ Tubaa Mbàkke ëpp ngëb sëriñ mu ne ko todd boo doonanu sëriñ it ñun matunu la ay taalibe waaye nag pexe amut ñun ñoo fi ne nee na kon nag ndokke ñun nee na dafa mësa a dégg sëriñ Abdul Ahad mu wax ni Cheikh Mouhamadul faadal daf ko nettali ni ko daa xëy bis ñëw ci sëriñ bi mu ne ko tey de damaa ñëw ngir santal si taalibe yi taalibe yi wëy ak yii fi nekk ak taalibe yi xas a ñëw ëllëg nee na ñuy sant nag ci tase gi ñu tase ak yow bokk ci sa mbooloo te la nee na sëñ Tuubaa ne ko sëñ Fàllu sant ngeen ci lu ko mat ndax ndax bu ngeen ñëwoon jituma wala ma taseeg ak yeen leen ma. wala ma dem ba sama mbir jeex ngeen doog a ñëw. wala kon day melni gemmiñ dalena japp neena yeen nak gemmiñ jappulen yesu len gémmiñ waye leen. Fallu li tax ngeen war a sant ànd ak koo xam ni fa mu jëm xam na ko fa mu la jëmee it xam na ko nee na loolu dafa yombut te moom mii Sëñ Tuubaa daal di tàllal baaraamam yu tedd yooyu daal di ni rëdd baaraamam yii ni mu ko leeree nii la ko leeree fa mu jëm ak fa mu nu jëmale nee na loolu sëriñ Abdul Ahad la ko déggee sëñ Fàllu nettali ko ko nee na kon nag yéen itam na ngeen rafet njort te sant yàlla bu baax ci ki ñu àndal mu xam fa mu jëm xamit fa mu nu jëmee sëriñ bi nag dara du si jariñ kenn lu dul jëf la Cheikh Ibrahima Fall daa wax rek nee na sëñ Touba baskil la tiim ko di wax rek amul njëriñ nee na danga cay teg dara mu doog laa wax nam toll waaye waxi kese rek du la ko wan nee na jëf rek nee na mel na ne am ngeen pas-pasu jëf yàlla na leen sëñ Touba defal tawféex ba yéene ji ngeen am jëmmal kër sëñ Touba fii. ngir jëmmal kër sëñ Touba fii ci Yarax. ak daara yi sëñ Touba fii. ak daara yi sëñ Touba fii. yàlla na dëppoo bëggug sëriñ bi. yàlla na dëppoo bëggug sëriñ bi. ba mu dimbali leen ba ngeen defee ko ni ko bëggee. ba mu dimbali leen ba ngeen defee ko ko sëriñ bi bëggee. sëñ Touba mooy tànn ay këram. ndax sëñ Touba mooy tànn ay këram. du foo bëgg mu am fa kër rek mu am ko fa. du foo bëgg mu am fa kër rek mu am ko fa. nee na pàkk yi war a doon ay këram. suñ borom tànnal na ko. sunu boroom tànnal na ko ko ba noppi nee na duuni duur yi wamaa lixtiira min jiiraani naajiyatun min jaalibil xusraani nee na moo tax du fu la neex rek def ko kër sëñ tubaa nee na sëñ tubaa mooy tànnal boppam këram nee na kon nag moom sëriñ am sëñ sëñ Abdou Samad mi ngi koy dagaan ci weeram wii sëñ tubaa tànnal leen pàkku boppam te yombalal leen la ngeen cey def ba noppi it ngeen amee ko na ko sëriñ bi bëggee ak na ngeen ko bëggee nee na su boobaa yàlla na fekk sëriñ Muntaxa Mbàkke mën koo yebal mu dikk ubbil si leen ko nee na ngeen am ci ngërëmam am ci ngërëmal sëñ tubaa liggéeyal sëñ tubaa nag sëriñ bi nee na liggéeyal sëñ tubaa nag moom. da tàmbali rek. nee na da tàmbali rek. nee na sëriñ Saaliw daana wax ni. nee na sëñ Saaliw daana wax ni mosumaa gis lu àgg te tàmbaliwuñ ko. ab murit moom. day bëgg rek tàmbali rek. la ca des sëñ bee koy àggali. nee na Cheikh Mouhamadul Moustapha. ca mat ga. ak jàmbar ga. ak fidwa am na ku ko mos a wax ni ko. lii nga tàmbali fii. lii nga tàmbali fii. mu yaatoo nii. mu yaatoo nii. ci àll bi ay jumtuwaay amut. ay jumtuwaay amut. ci jamono ju naqari ji. mu ne ko damaa defe ni da ngaa xamut tabax. nee na sëñ Modou Moussa ni ko yow it xamoo sëñ Tuubaa. waaye yéen itam. sëñ bi nee na bëgg leen rek. te dox wi. sëñ bi ngeen di dajal mo leen di defal li ngeen bëgg te neena mi ngi ñaan delu ci wat fi ubbil leen ko ci dara jey sëñ Tuubaa sëñ bo sëriñ bi neena yow la bëggoon nga waxal ko sax neena mi ngi and ak Jiili mbacke am di mi nee na xataay bi bu benene rek buñu delsé mu gëna yaatu insha allah sëñ bi nee na li tax sëñ Touba yemul ak dara te liggeyel ko yemut ak dara mom sëñ Touba ci bopam da da liggeyel bopam ndax xam liggeyel ko da da wax ni jëm ji bu ko mënon def ñaar jenn ji di liggeyel jenn ji dana ko def kon nag ndokk bi leen yàlla xiiree ci liggéey ndokk bi leen yàlla xiiree ci liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen di ndaw yi sëñ Tuubaa ngeen di ndaw yi sëñ Tuubaa yàlla na leen sëñ Tuubaa gàttandu ba bu ëllëgee ngeen bokk ci gone ya nga xam ne dañuy doon bëkki néegi sëñ Tuubaa ca àjjana ci dara daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na sant na leen bu baax tey rafet njort ci seen mbir lool nee na la ciy wàll zahir nag la mu ci war a dox ci ay pexeem nee na la mu ci mën lépp dana ko def jàppale leen ci wet yooyu yëpp ku ko déggalit bu ko laabiree nga dégg ko dina ko wax mu jàppale leen ci waaye nee na bu leen kenn jàppale wutoon it siñ Tuubaa dina leen jàppale waaw nee na ngeen rafet njort bu baax jërë ngeen jëf kon ñu bokk tàllal rek na ñëpp tàllal امين amin mbakki amin mbakki الرحمن الرحيم ربي بما يشرب الأذان قد جاء بجاه يقدر من لله قد جاء حمدي من ابن كريم لا شريك له وصدري منور شاة الملا محمد صلوات الله في أبد علي في حسبي كلي بي كذا أتوا إلهي لسعم المواهب وجملة الخلق ما يختار من براء ناجته وجل عواما وكرمني تكريم هاد وكل من لعن بري يا رحمن هب لجميع القلق رحمة من يغني عن الشر من قرآن وقرأ على المصطفى عن كل مفسدة ترحم القلق يا من جد وبلاء يا مالك الملك يا من جل عن ارحم جميع الوراء يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن ارحم جميع الوراء يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن ارحم جميع الوراء يا هادي الرضا موت ما قد محاه القلب من فرج بجاه افضل من الله قد رجا سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بركسه والحديث ما لا يقول إلا الله kuréel 3 ngeen continuer seen ab liggéey ñu ne liggéey bi jeexagul da di xam ne kilifa gi def na li mu war a def su ko defee ñu ñun ñi fi des dañoo war a am lu ñu waxtaane ak mbooloo bi fi nekk bu ko defee ñoom